gannaaw bu mu génnee prison Ousmane Sonko daal di door campagne électorale ak ay kàddu yu mu a jëmale ci benn Bokk Yaakaar rawatina seen candidat Amadou Ba. dama bëgg nit ñi. bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall. démb ñu doon liggéeyandoor tey doon ay kuje politique inspecteur bu impôt ak domaine ba woon mii di Ousmane Sonko bàyyilul dara Amadou Ba. mu ngi wër nag di wax yor làmmiñam di wax nee na ñu lay attaqué bukki nag bu yabee waxambaana Amadou Ba mënuñoo yab de ndax dañoo bokk de liggéey. yàgg naa jël lu mu warul jël ma ne ko tegal ci suuf. gannaaw yi la kàddu directoire bu campagne bu Amadou baa génnee ab bataaxal ngir teggi tuuma ñoom ñile jàpp ni njiital Pastef kàddu yu mu yëkkati du leen lu dul ay tuuma ak i sos ngir tilimal seeni deru candidat ñuy naqarlu it li bu bu Ziguinchor bàyyiwul ba tey ni muy defee politique gannaaw bi mu génnee kaso ci mbaaxu njiitu réew mu Sénégal ay farandoo Amadou baa jàpp ni seeni candidat amul benn jot bi muy jagleel ay waxu xale te du bàyyi yooyu le kàddu di ko jëlee ci yoonu jàmm bi nga xam ne ni moom la nekk rawatina ci waxtu yi nga xam ne ni moo ngi wëyal campagne am ci gox goxaan yu nekk ci biir réew mi ngir fësal ab programme ci noonee ñuy rafetlu gox yi nga xam ne ni ay nit yu tàkku ñoo leen fa teeru gannaaw bi nga xam ne ni ngir taataan baatu askan wi ngir ñu mën leen wooteel